jërë ngeen jëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bii di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax tey ji nag ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci asalem ñëw ci buntu kër ki nga xamante ni moo di Sémou Sémou nag nekk benn xale bu góor boo xamante ni dañ ko faat ci faatin bu doy waar loolu moo sabab suñu ñëw fii ngir mën a jël ay témoignage waaye tamit mën a jël ci mbir moomu naka la demee lan moo tax ñu faat Sémou moomu lan la problème bi kan la amal problème ndax ki ko ndax yoon teg na ko loxo loolu lépp dinañu gisee ak ñi nga ni ñoo di ay xaritam wala ñenn ci famille bi bu ko defee see ñu indil ñu ci ay leeral ñu ngi ni nag ci buntu këram euh, dañuy daal di dox tuuti rek gisee ñi nga xamante ni ñoom la mbir mi concerné dañ tàll leen micro ñu indil ñu ay leeral ci mbir moom mu naka rek la demee. Euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu. ñu ngi leen di nuyu yéen tamit waaw Wassare. tur bi naka la saaliw leen nga ci euh, semu mi nga xam ne moom moo fi ko semu ñoo juddandoo yarandoo takkaloo kër on a ñoo màggandoo defandoo lépp waaw bi ñuy gone ba tey ñooy ànd gannaaw ba ñu la jaalee euh, tiis bi nga xam ne rek moo daal di ñëw dal ci seen kaw ndax mën nga ñu ñëwalaatal ci mbir yi rek exactement naka la demee. waaw mbir yi day euh, day mel ni Semu euh, daa nekk turki di ñëw saawoo saa vacance bu ñëwee buy ñëw vacance day indaale ay marchandises ci mel ni ay couche bébé ak ay parfum bu ñëwee di jaay couche yi ak parfum yi. Euh, muy mel ni parfum yi muy placé di ko joxe euh, day mel ni ci loolu la la la coow li soso ndax ki ko joxoon la jàdd di fayeeku koppar yi mu ko joxoon ñu war a def décompte foofu la coow li tàmbale ci noonu kooku euh, échange yi am kooku magam moo rey semu ci amoo bor mag ku ku góor ku xale sunu morom ki ñu maaseel muy Aliou Sy Euh, magam Souleymane Sy waaw moo fekk Aliou nag euh, Sémou ñuy xuloo di waaw Sémou di ko laaj ay kopparam mu jam ko waaw muy mel ni nag euh, ci famille la boo xamante ni si bi mooy quatrième homicide ci li ñuy compter ci biir famille boobu ci biir HLM hmm, day mel ni fii ñu toll nii. ci nga xamante ni si tey moom lañ jógee léegi denc ko waaw dootul jàpp ñu ni euh, beneen crime dina teguwaat ci seen ci seen kaw waaw ñoom nañ jàpp ni euh, bu doon ñoom lu ñu lu ñu rituel la si ñoom parce qu'ils sont bizarres c'est une famille bizarre famille bu doy waar la ñu tax na daal euh, xam naa ni ni mu demee metti nañu loolu nag mën nañu xam koppar bi nga xamante ni war moo waral faat googu ndax xam jot ngeen a xam ci ñaata la toll woon bi xamuñu ko montant bi xamuñu ko exactement am na ñu ko xam ci gars yi mais voilà quoi c'est pas forcément important quoi ça tournait autour de ay vingt mille quinze mille ay pack de parfum yu ndaw la yooyu xamante koy indi di ko joxe voilà mm-hmm. tànk dégg naa ci say biiri wax nga ne famille boobu bi mooy quatre-vingts personnes bi nga xamante ni faat nañu ko lan moo tax ngeen bàyyi ba léegi famille boobu nekk ci koñ bi ba pare des crimes yi di continuer justement euh, xëy na HLM ak ni ñu yaroo ndax ñoo juddoondoo ñoo bokk koñ ñoo yaroondoo xëy na euh, li jot a xew yëpp fii bon nit ñi ñi ngi ñi ngi ñi ngi continuer di jéem sax waaw di maslaa donte nag Euh, ku ci neex HLM am na benn benn bët bu ñu leen xoolee waaye ñu ngi continuer ba leen sunu biir mais kii ñu fi jëlee tey tax na bëggatuñ leen bëggatuñoo dëkk ak ñoom ci biir cité bi loolu démb interpellé naa ci le maire l'institution bi jëkk ci localité bi autorités yi concerné yëpp parce que dootuñu nangu dëkk ak ñoom ci cité bi ñoom faaw rek ñu ñu ñu xam fu ñu dem. ndem mënuñoo dem di reyanteeg ñoom wala di fayoo dóoranteeg yooyu ndax ci réew lañu ne ci république lañ bu am ay ay loi am ay am yoon ndem yëf yi mu ngi ci loxoy yoon na yoon doxal liggéey waaye ñun ñi nga xam ne suñuy rakk lañ fii rey suñuy xarit suñuy suñu frère suñu petit frère ñooñu lañu bëggatul dëkkal fii ci cité bi waaw loolu ñu ngi koy lancé képp koo xamante ni si rek yaa ngi dégg problème bi xamal ni famille la boo xam ne on a affaire on est victime d'une famille meurtrière lu li may po parce que tu as quatre homicides enregistrés à votre nom donc ñooñu bëggatuñoo dëkk ñoom ci cité bi voilà. gannaaw euh, sama moom nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo nekk sa xarit euh, boo xamante ni ànd bu yàgg ngeen ànd yan kàddu yu sedd rek nga ñu mën a jox ci moom tey ji euh, di nit ku baax nit ku woyof malheureusement il était asthmatique. semu bi ñuy nekk ci tout tànk donte sax dañ daan xeexoo suñu biir waaye semu kenn du ko kenn du xeex moom ndax dogal yi suñu borom def ci moom asthmatique bu xaw a kéemaane la ci moom waaye muy góor yàlla loolu ma yërmande bari taalibe euh, xëy na li ko yóbbu nii sax mooy euh, doonu taalibe ndax ñàkk a boddi gi muy ñàkk a boddi ñi nga xam ni ñoom la fi toogandoon màggalandool sunu borom def tëjjal ko bunt muy muy dem ak ñëw di yëngatu bu ñëwee ñàkk leen a boddi ak ñàkk leen a mel ni ku leen di jaay dara moo tax muy ne di leen fréquenter ba ba tey waaw loolu moo waral xëy na ñëwee loolu sax mooy mooy moo moo ko jural lii tey waaw di nit ku baax seere bi ñëpp benn la c'est mu mosuñoo am xaar ma yàlla nit la koo xamante ni si man personnellement lu ma musa a yëkkati wala ma nekk ci bu ñëwee donte seen na ma ci rek moom loolu doy na ko sax waaw du laajte nax du laajte dara day ñëw da da ciy nekk comme waaw ku xam ni bu demee waaw. nit ku sedd buy wax du la siggi xool ci suuf lay wax te donte géant la nag te nit la koo xamante ku bari jom la ku bañ lu bon la ku bañ lu ñaaw la ku bëgg lu baax la taalibe la te euh, ku amoon yéene ju rafet la ci ñi mu bokkal ak ci képp ku mu xamanteel un gars positif dans à tous les niveaux c'est mu il est pas violent il est pas verbalement gisuñu benn sikk macha allah ci ci doxinam sunu biir waaw. naka rek ngeen yëgee tiis bi nga xamante ni moo daal di ñëw dal rek ci seen kaw. ba par téléphone. gars yi ñi ko jot kii vite fait les coups téléphone sont passés gars yi wootante sunu biir ñu ñëw ta yegg si gaaw. waaw gis malheureusement ci kooram lañ yam metti nañu trop bu doon lu ñu mën a fajal suñu bopp duñ kon fajal nañ ko suñu bopp bu yàgg waaye nag ay dogal la tey jullit lañ suñu borom dogal jaare xëy na seytaane jaare ci laxasu ci waaye nangu nañu dogal yi jébbal nañ ko boromam defee nañ ko ci anam boo xamante ni semu tey lii mu am wax dëgg neex yàlla képp kuy doomu aadama boo sañoon da koy am ni ni ñu àndee denc semu rek mooy wane jëmm ji waaw mooy wane ki mu doon waaw. gannaaw ba ñu leen annoncé loolu ngeen ñëw fekk ko mën nañu xam bi ngeen ñëwee fan la ko waa ji jam exact. Euh, au niveau de ci suufu kii bi euh, suufu poxotaan bi au niveau du cœur waaw mu def un play boo xamante ni si salualité fatal moo ko jural euh, voilà mais il y aussi des coups et blessures. ku ay blessure yooyu ak euh, semu ni mu toll ak le le le le le le présumé meurtrier nu euh, nu laisse à croire que euh, du woon kooku rek la doon xeexal waaw ndax semu c'est un géant Souleymane mënul sama doom bu ndaw bi ki ko rey kooku mënul sama tout tànk bi donc li ñu gis ci rapport bi autopsie bi gis ko tiim nañu semu balaa ñu koy defar gis nañu ay coups yoo xam ne ñu xam ni kii xeex na Souleymane mënul def li mu li ñu li li rey Sémou Souleymane kese mënu koo def loolu nag ñu ngi ciy inter interpellé euh, interpellé euh, interpellé par l'occasion l'autorité euh, administrative à savoir la police waaw ñu topp enquête bi képp ku ci laale ñu fexe que justice soit rendue il avait cinq ans jotul am jabar jotul am doom ki nga xamante ni moo jëf-jëf jooju yoon teg na ko loxo wala. yoon teg na ko loxo fii may waxee ak yow moom y avait son petit frère bu bi nga xam ne moom la semu doon fayeeku euh, qui avait tenté de de de de fuir ba démb lañ ko fekk ci oto jàpp ko yóbbu ko police il paraît que même euh, il a été libéré mais sous sous sous sous serment ou je sais pas sous contrôle en tout cas ñun daal euh, liñ ñu def metti nañu te ça commence à perdurer. benn famille bi di causer ay naqar ci biir cité bi et muy demee noo xamante ni si daal day mel ni ñun daal bu ñu sañoon justice dina ci def loo xamante ni si ça donner l'exemple et ñoom daal ñu génn cité bi daal waaw ñun loolu lañ bëgg. jërëjëf ñu ngi la koy jaale bu baax a baax di la mosaw ba ñu la nuyoo ñu bàyyi la nga nuyoog mbokku internet yi nga xam ne ñooy seetaan site bii di wasaare jaalelal ki nga xamante ni tey moom moo fi bàyyeekoo bokk ci sa njaboot nga indi ay kàddu seede rek ci moom waaw salaamaaleykum di jël kàddu rek ci nga xam mooy boole ilif ñu ñëpp muy sëriñ Babacar Mbacke ci diir mu ka boro mu sëriñ Ibrahima Ndar maam Cheikh Anta borom gaal ci kàddoom lañuy ñuy waxee rek ndax moo ñu fi teg te si ndigalam la doxee ak mbokk taalibe yëpp waaw kii semu dafay nekk taalibe sëñ bi bu nekkee xale ba léegi xamul ko lu sëñ Babacar waaw di dox nag ci ay ndigalam. bu sëñ bi ràññeeku lool muy xale bu am yar am teggin am kerso lool nag dañ ne ko sax dañu ne ku am texet la ndax amul xuloo xamul xeex xamul yooyu ni ko am jàmm la jàmmanteeg ñëpp nag boo gisee di eh, robem tey rek nga xam nitu nit ñi la waaw ñamul sax si kër gi mbokk muy sant borom gaal waaye fépp fi am taalibe ak jullit rek sëñ mu am naa yow jàmm ak salaam. ñun nag ñoo ko yar ndax ñoo dëkk aslam mu tax li ñuy wax xam nañ ko si moom moo tax mbir mi bett nañu loolu daal waaw ndax du nit histoire waaw xam nañ moom lañ koo tooñ waaw du histoire xam coow sax amul te xale yu bëri moo leen redressé fi aslam xale yu bëri yu nekkoon ci drogue beeg ci nangam ak nangam ñu si bëri gëmuñu ay liggéey c'est mu fexe na ba gëmloo leen liggéey xam leen ndaw dafa war liggéey ndax moom si loolu la mos balaa muy dem Turquie loolu rek jënd ak jaay Colobane jënd jaay yooyu rek mu nekkoon ay mbiram jàmm rek kon nag lii bu amee nekk na loo xam ni diis na lool daal si ñun waaw loolu daal diis na lool xam daal yàlla mooy dogal waaye sabab am na si moo tax yàlla nag joxe ndigal nee ko ku ñu rey la waaw ku rey ñu rey la waaw kon nag yàlla ñu ëpp yërmande dafa ñu ku ñu rey la wante ah, lii nag ko nangu ndogal la dañ ko ñaanal waaye nag dañ ko topp waaw dañ ko topp ndax tamit. comme que yoon lañ teg duñ jëfewuñ ndigalu yàlla yoon bi ñu fi teg ñun dañ topp yoon boobu ñun HLM lañ dëkk te dinaa waxtaan ak jeunesse HLM bi ñëpp si ñiitu kooku nu mu tudd Souleymane nga xam moom mooy président jeunesse HLM yëpp ñu taxawaat HLM waxtaanaat xoolaat liggéey HLM nan la koy doxalee parce que yii moom lañ bëgg mu jeex fi waa mën na ñàkk daal. relation baam taalibe ak sëriñ. taalibe ak jërinam ndax man mii sëñ Babacar man la leen dénk man maay seexam bi féete fii asalam mu jël taalibe yi nekk asalam yëpp teg ko sama loxo ne ma jox naa la taalibe yi kon maa nekk intermédiaire bi ñoom seen diggante ak bi kon nag daanaka man dénkaan laa dama dañ ma leen dénk looloo tax nag man si man la gën diis waaw xale bu am yar la toog rek ñu woo ñu téléphone wax ñu ko. mu diis lool waaw xale yi dem fii kenn mënu téye sa bopp jooyo bi maam dañ doon dem sax pour taali kër googu pour man maa jël xale ba rawale ko ndax en tant que mag rakku ki ko rey dañ ne semu maam ki ko rey dañ ko sot man maa ko jël yóbbu ko police wax dama xam moo ko bàyyi xale yi dañ dal si koom te buñ ko gaañee coow beneen di indi ma def yi fu mag jël ko yóbbu ko police waa police téye ko ne ko waroo woon dem parce que dafa doon génn pour dem pour dem Touba voilà. non du c'est pas la première fois HLM dafa yàqu yaa a trop de meurtre léegi xale yi drogue bi ak meurtre koo wax mu jël paaka dañ ci war a jóg ça veut dire que si kaw président bay suuf laa meurtre yi am Sénégal c'est trop il est temps bu munul perte de maire ñu def perpétuité waaw mais grâce yi c'est trop ku dee ngay perte yàlla waxul loolu yàlla ëpp ñëpp yërmande def ni ku ñu rey la waaw. xam nga jëfandikoo bi am na si mais na ma yàlla baal ñàkk éducation ñàkk yar ak ay teggin la nga xam ne ñun la ñu xamoon suñu ba suñu suñu ñun la ñu yare woon ñun waaw moo tax xale yi dama leen di conseiller dañ dem si daara yi daal moo gën te góorgóorlu ndax xale yi ne si daara ji duñ dem di rey duñ dem di wax ña ngay sa football po ña nga sa ay manifestation yi waaw drogue bi nag joué na si lu bari parce que xale yu bëri maam bu ñu amul lu ñu def rek dañuy jéem a wéeru si drogue bi yàq seen bopp mais ku drogue ba yàq sa bopp sa bopp nga yàqal waaye mais daal lu ñu war a jóg taxaw la daal. jërëjëf kilifa ñu ngi la jaale bu baax baax di jéggalu aussi sa temps bi nga xamante ne jot nañ merci kontaan nañu baax a baax. kilifa gi maa ngi lay ne ñu ngi lay delloo char bu baax a baax yaay booy. Saliou la. Saliou lan nga ci Sémou mi nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo. waaw Sémou nag moom dafa doonoon mbokk taalibe bu bu yaatu. waaw doon mbokk taalibe boo xam ne dafa sekk ñépp jàng sekk ñépp ñëpp teraanga waaw doon ku am pas-pas si daara ji doon am ittee si ji doon koo xam ne ah, jëmm ji nga xamante la. daara ji yépp dañ ko ràññee te loolu dafa yombul si nit daal waaw nit boo xam ne maanaam amul fenn frontière waaw si mu amul fenn foo xam ne daf dafay ragal a jaar te loolu jikko ak jëf ak pas-pas moo koy may nit waaw ndax ku gis bis bi nu mu nu mu toll nga xam ne bis bi waaw lii mbiru jikko la daal luñ naan li moom daraja mënu koo faggu alal du ko faggu juddu gu rafet du ko faggu lii jëf ak jikko moo koy faggu waaw ndax woote ñëpp wuy loolu yombul wàcc liggéey ñu jaale la loolu yombul feebar ñu seetsi la loolu yombul woote ñu wuy loolu yombul waaw loolu moom jikko la waaye du alal du daraja comme noonu ma ko waxee waaw ah, kon loolu nag moom dañ koy jaale suñu mbokk taalibe yëpp di ko daa jaale suñu mbokki taalibe jullit yi di ko jaale si rawatina murit yi ak Baay Faal di ko daale fédération Daara sant borom gaawaan gépp di ko jaale fédération Daara sant borom gaawaan bu HLM si njiitu Cheikh Ibrahima taal mu këbaroo waaw ah. rek ngeen yëgee tiis bi nga xam ne moo daal di ñëw rek dal ci seen kaw. waaw tiis bi nag moom mm, ñun daf ñuy jëlee kaw. waaw daf ñu jëlee kaw loolu loolu loolu loolu yaay booy ndax lu tax mu jëlee ñu kaw mooy foogayu ñu ko woon si moom moo it mi nga xamante maam moo fi dëddu te wuy ji suñu borom sa kërub dëgg ga moom ñun leer nañu moom moom foogayu ko moom si jëmmam waaw ndax ki nga xamante maam bis boobu HLM daanaka ñëpp gis nañ ko HLM bi ñëpp gis nañ ko ndax koo laajte la mu ne la man romb naa ko léegi même pas de euh, minutes ñun nga xam ne ñoo nekk ak moom te toujours ñun ñooy nekk ak moom même pas 30 minutes 40 minutes ñu ñëw ne la maanaam ndogal boobu wàcc na si moom loolu da lay da lay jëlee kaw daal waaw loolu da lay jëlee kaw daal waaw bu doon dafa maanaam dafa misaaloo li nga xamante ne maanaam kuñ ko wax sax du bett kenn waaye nii mu misaaloo dafa xaw a dafa dafa xaw a yéeme waaw dafa doon mbir mu mbir mu bisaar daal. dafa doon mbir mu mbir moo xam ne neexut a wax soxna si waaw neexut a mbir mu mbir mu yéeme la waaye lépp rek lépp lépp lépp rek dañ koy bàyyi si loxoy suñu borom. ndax ki moom moo faat Semou xaritam la woon wala. waaw ki nga xamante ne maanaam moom lañ ne moo ko def ndogal li wàcc si moom moo ko faat kooku ñun kooku xam nañ ko xam nañ Semou xam nañ kooku xam nañ Semou. waaye kenn mënu la wax maanaam euh, kenn mënu la wax kooku ban ban ban maanaam rapport la mën a am ak simu ndax du âge du si maanaam nduróow ñu doxin du su comportement du su melokaan waaw kon buñ nee kooku maanaam moo ko euh, jëf-jëf ji ñun ñun loolu daf ñuy jaaxal ndax mënuñ mënuñ xam kooku maanaam loolu moo leen war a mun a boole ba kooku jëf-jëf ji simu ndax jëf-jëf ji simu na kooku du def simu du ànd ak kooku waaw kooku simu du ànd ak kooku moo da ñun mbir mi daf ñoo daf ñoo yéem daal waaye nag kon nu ma la ko rek dañ koy delloo sant suñu boroom rek na ndogal gis day day am sabab waaw gis moom day am sabab waaw ndogal lu lu am yàllaa ko def te xam na waaw muy ay yiw nag dañ koy sant suñu borom rek. waaw metti na nag ndax nit moom jëmm la ak xool akub sidit waaw ku ne ku ne méttiwul moom dalaa dalaa dalaa dalaa jegewul wala dalaa dalul waaye si li bët di gis waaye nag lépp delloo nañ ko si loxo yàlla suñu borom rek barki ma tey ngeen bokkoon ak ki nga xamante ni moo di sëmmu daayira bi ngeen ànd tamit ànd boo xamante ni ànd bu yàgg la tey boo ñu doon wax jikko yi wala qualité yi nga xamante ni tey moo la gën a marqué ci moom yan lay doon. waaw eh, qualité eh, yi ma la mën a wax si moom mooy li ma la waxoon si njëlbeen rek mooy amul fenn frontière. si mu fii amul fenn frontière fu mu fu mu fu mu fu mu fu mu jug di dox il faut mu taxaw foofu il faut mu il mu taxaw foofu euh, waxtaan ak ñooñu doogay dem ba bis bu muy wàccee sax ñu bëri ñu bëri nee na la jaar na bërëb sàngam jaar na bërëb sàngam jaar na bërëb sàngam jaar na bërëb sàngam kon loolu ni nga mel ak nit ñi moo la koy may ndax am na loo xam ne boo ko melatoon ñu ne loolu loolu du mun a nekk. Ah, non non boo ko melta nit ñi loolu du mën a nekk te lool loolu valeur la loolu qualité la te yàgg naa jëfal sëriñ bi yàgg naa jëfal sëriñ bi su lu ñu gis dund ko ak moom xam ko ak moom ba si waaram wii mu doon waar sax waaram bii mu doon waar sax da doon jël ay alalam di ko jox ay mbokk taalibe ñu ñu ko ñu koy ràngu di ko di ko di ko maanaam di si jaay di ñëw di ko joxaat xéwalam di si am ñoom seen xéwal kon kooku ku amal ittee société bi la ndax loolu rek boo xoolee rek moom mu ngi mi ngi sax emploi ndax koo xam ne day jël alalam jox la ko nga dem jëfandikoo si boo ñëwee delloo ko jël leen li def sa poche kon kooku mi ngi doon créé emploi ah, kon kooku nitu kooku avenir la nitu qualité la kon loolu yombul. jërëjëf sëñ bi ñu ngi la koy jaale bu baax a baax. waaw yow itam ko jaale bu baax a kenn ku ne rek mën na koo jaale la jaa sa sa sa bopp waaw kenn ku ne mën na ko jaale sa bopp yéen itam ñu leen masaw bu baax a baax a baax a baax si itte yi ngeen def. ak lu rafet lii ngeen def ñu ngi leen si jaajëfal wér yàlla na yàlla fay yiw. Eh, kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi delloo ziar baax soxna si. tur bi naka la. man maay Diorin Aynina Diagne. Diorin nan nga ci semo mi nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo. waaw semo man maay Diorinam moom si daara la bokk. waaw man la leen sëriñ bi booleel maa seen jëriñ waaw. gannaaw ba ñu la jaalee tiis bi nga xam ne moo daal di ñëw rek dal ci seen kaw yan kàddu yu seede nga ñu mën a jox te semu mi nga xam ne tey moom moo waaw ñu leen di wax sigi leen seen wàll ndax semu moom ku ne mën na ko jàll boppam si gox bi wala sax si dëkk bi laay wax waaw ndax euh, moom taxawaayam si daara ji mooy taxawaayam ci gox bi rek semu nekk na ku am yar am teggin li ñëpp seede mooy du sax sigi xool nit waaw kon kooku loolu moom ay teggin la ci nit. te lool nekk na ay caractère bu baax ci nit maanaam jikko la boo xamante ne yeneen bi waxoon na ci jikkoy tedd yi la bokk ndax buur du wax ak yow sax ba sigi xol la waaw kon loolu day wane ne seen amoon na yar am am am teggin loolu la taxawee ci daara tamit ba tey suñu borom dogal lii mu dogal waaw. naka ngeen yëgee tiis bi nga xam ne rek moo naa di ñëw rek dal ci seen kaw. waaw comme ñu ëpp rek daanaka dañoo toog si gox bi rek julli tisbaar ba noppi doon waaj a dem levée du ñu xamal nañu ne mbir mi noonu la demee ba mu ñëwee tamit ci kër gi xool bunt bi mu tëje si la continuer dem ci poste de police bi fekk noonu situation bi comme ni mu demee noonu waaw noonu daal lañ ko yëgee ñu ñu si ëpp waaw. waaw moom daanaka du ma ne sax tout tànk si jëwriñ ñi la bokk waaw ndax bu muy jëbal ci sëriñ bi xale la suñ borom dogal mu nekk ak ñun fii si dëkk bi. ba nekk ci waar bi ràññee ko si lool nag waaw ràññee ko si lool ba ñu bëri xam ko ñu dogal borom bi dogal mu tukki dem Turki nekk Istanbul di fa daan dooleem bu màggal jotee mu ñëw dellu nii rek màggal Tuubaa gi la ñëwoon daanaka dégg nañ danañ waar a dellu waaw taxawaay moom si daara ji moom mooy yar ak teggin ak bu ñu wootee mu teew bu ñu laajee mu joxe waaw moom maanaam exemple la ci daara ji waaw exemple la waaw mooy li ma leen njëkk a wax rek mooy yar ak teggin ak kersa waa xam nga loolu moom dafa ëmb lépp waaw dañ ne ku ku du yor dara ku amul teggin du teggi dara kon ñaar yooyu bu ko bu amee rek mu teg ci am kersa ndax kersa bokk na ci jikko yi gën a kawe waaw may ñoom boo xoolee ñoom ñoom ñoom ñoom seen Ousmane yeneen yi ñooñu kersa la leen ñu borom maanaam aje woon ci yenn yenn yenn tolluwaay te semu loolu amoon na ko man mii man maay jëriñam daanaka bokk naa si ñu njëkk àndal dem ay màggal Poroxaan wala Daaru Salaam may keroog la dañuy waxtaan may fàttali lu yàgg benn màggal Kazu bu ñu demoon jamono yooyu ñu ko doon defee Touba bu ñu paree ñëw Daaru Salaam fekk fa baaw Babacar li ma lay wax nii daanaka war na def ëpp na 15 ans ci gannaaw kon yàgg na waaw boobu ba léegi nag si lii lañ ko xam mooy yar ak teggin ak am kerse ak tamit doon ab Baye Fall nag. waaw ndax koo ndax boo xoolee sax dañ naan la Baye Fall wala la Baye Fall ayatee nangam kon sama moom Baye Fall googu mu doon woote tey bésam bi seede na ko ndax ku ñëw ci denc bi gis mbooloo ba fa teew ak baatu yàlla bi ñu doon tudd foofu muy kalimatu aq bi ak xase yi nga xam ne moom lañuy dégg nii ci sooba léegi wala mbokk yi yendoo ak alxuraan bi ñu fi jàng ndax loolu lépp da ko doon dund waaw bu ñu doon demande si yenn jotaay day yor téereem di barkeelu di durus waaw di si bu Sam Fall amee mu dem di sikar ba nataal mi ñuy gis yu publié ëpp ci Sam lañ ko gis mu nekk ci kuréel noonu la amee woon tamit oyof te di jëflanteeg nit ñi waxuma sa mbokk taay mais nit ñi ndax dafa nekkoon koo xam ne maanaam te dafa bokkoon ñoo xam ne ay acteurs de développement lañ parce que da doon créer mu ñëw petit emploi di jël ay bagages di jox mbokk taalibe wala ñoo xam ne sax duñu ay mbokk taalibe ñuy yëngu di am dara maanaam en retour di ko delloo moom waaw kon loolu rek maanaam ab tawfeex la daal waaw kon taxawaayam macha allah rafet na waaw. Euh, jërëjëf ñu ngi la koy jaale bu baax a baax waaw di leen ko waxaat comme nañ ko waxee rek sigi leen seen wàll ndax ku ne mën na ko jaal boromam ñaan borom bi yokk yërmande ci moom dafal ko njégal barki maam Cheikh Ibrahima Fall yoon bi waaw yàlla na bi def tawfeex bu baax lay maa ngi lay fay yaa booy ñu ngi lay siyaar tur bi naka la man Cheikh Oumar laa tudd ñu ngi may woowee nag HLM Elouba Cheikh Omar lan nga ci mi nga xam ne tey moom moo fi bàyyeekoo Euh, semu de bu may wax nii li li gën a fort si ñun mooy mbokk mbokk mbokku pas-pas ñoo bokk benn lu ñuy dund mooy sëriñ bi sama mbokk pas-pas la ah mbokk taalibe la gannaaw ba ñu la ko jaalee si tiis bi nga xam ne moo ñëw rek daal di dal ci seen kaw yan kàddu seede nga ñu mën a jox ci sama mi nga xam ne tey moom moo fi jóge waaw soxna si dëgg la balaa may joxe kàddu seede damay koy jaal suñu yaakaar suñu butu sëriñ Tuubaa mooy Cheikh Babacar Mbacke si deexul mu kaburo dama ko koy jaal di koy jaal maam Lamputaal Nuuru Laay mooy suñu buntu si Cheikh Babacar Mbacke. di koy jaal seen waa kër di koy jaal njaboot gi di koy jaal mbokku taalibe di leen ko jaal yéen ñi waa wasaare yéen ñi déplacé wu ñëw HLM di bokk ak ñun nii naqar bi bu ñuy seede si semu tubaab li mu naan la répétition et les pédagogiques semu daanaka benn benn benn benn benn wax ngay wax si moom. li nit ñi wax ñëpp nit gars yi nit ñi di wax ñëpp boobu ba léegi moom la ñuy wax nit ku am yar la ku am teggin la ku dul siggi xool nit la ku ku bëgg liggéey la ku fonk liggéey la ku fonk li muy def ku bëgg sëriñ Touba ku bëgg maam Cheikh Anta Mbacké waaw loolu moom mun nañ ko seede bu baax si moom jullit la taalibe la loolu moom mun nañ ko seede si moom bu baax a baax a baax waaw moom bañ na ko ba jóorin la may wooye joo la may wooye fu ma gis joo la may wooye màggal gi dama ñëw parce que def naa su ma juumul avant màggal gi laa ko fi déggoon mu dellu màggal mu dellu Istanbul ma ñëw ne ko ma gis ko si màggal gi man ñu ñëw Touba ma daara jam ma gis ko ma ne ko waa yow yow dégguma la fi woon dangaa delluwaat mu ne ma joo de man de damaa dem dal si benn coup ah, bii aller retour moo tax ma ne màggal gi foog ma màggal see ko Touba xam nga loolu loolu pas-pasu taalibe la loolu xam xaalis dafa neex si xol lay sax surtout ba nga jugee Sénégal yàggul nga nga dem nee na dal si benn ku njëgu billet aller retour mm, pour ñëwaat màggal si loolu. waaw loolu loolu loolu nga day wane moom mooy wane bësam bii tey waaw bëggam sëriñ Touba moo ko tax Serigne Touba fayee ko bësam bii parce que ngaan si yeneen relation professionnelle yi yi ma mën a wax ak moom si jouru màggal boobu si si jouru màggal gi jot nañu waxtaan si si si business quoi si liggéey quoi damay def prêt à porter damay jaay yére jigéen quoi te kuy wax yére jigéen dangay ngay wax ni turki la gën a yombee mu ne ma joo yow tamit kañ ngay ñëw dugg dugg turki ma ne ko pourtant décembre passé rek buggoon naa ñëw mais xam rek at business yeeg yooyu noonu mu ne ma jarul ngay ñëw yow wax ma lan nga bëgg rek man ma dugal ko si si si kii si GP yeeg yooyu noonu dugal frais dal la bagage yi lu si ëpp dañ dañ ba fan yi yëpp ñu ngi si doon waxtaan ba guddi ajuma bi passé bi si topp Massamba Diorine Massamba moo ay euh, moo ay woon daara ba mu ba ñu génnee fii lañ taxaw nii exactement fii mu ngi fob sama tuut tànk bi bi ma tuddee maam Cheikh Anta mi ngi koy fob naan ma joo mais business bi dina ci teg de ma ne ko waaw boo demee rek après ñu ko boo xool boo boobu ñu ngi doon maak moom ñu ngi doon waxtaan si nan comme par exemple nan laay lan la ñu mën a defee pour décembre bi décembre bi mu mu yónnee ma ay bagages fii nii parce que man dama am boutique fii quoi. ñu ngi si doon waxtaan lu bëri mooy li ñuy wax acteur de développement bi mu nekk acteur de développement la genre mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi góor góorlu si as la tuut loxo sëriñ bi jox mu koy bokk ak jaamu yàlla yi loolu loolu loolu c'est ay loolu geste gestu geste bu noble la quoi c'est mu li ñu mën a wax si moom mooy que ni nii nii boo xoolee bësam bi dangay xam ni carrément waaw tout tànk la si ay at ndax ñun ñun moo ñoom ñooy suñu deuxième génération si daara ji ñoom ñoo topp si ñun si daara ji mais da ngay xam ni kilifteef du ay at kilifa du ay at kilifa yàlla moo koy def si doomu aadama te moom kilifa la bësam bii war na ko sànq dañuy dem si si yoon bi bañ demee ba buntu daa ñu arrêté oto yi quoi. benn waay ne ma nii ban kilifa moo wàññeeku nii ma ne ko ma ne ko non kilifa du suñu mbokk taalibe la quoi mu ne ma kii de mi ngi mel ni kilifa ndax mbooloo mi mi ko topp ñun dañuy ñaan yàlla bésam bi suñu borom may ñu ko nde comme te du jaas loolu la ñuy ñaan yàlla suñu borom. Ah. ngeen yëgee rek xibaar bu tiis bi nga xam ne moo daal di rek ñëw dal ci seen kaw. waaw naqar naqar metti suñu xol man boo xoolee boobu ba léegi soo xoolee sama baat bi sax dafa boo dafa dee parce que waaw am na yoo xamante ne nag dëgg la ay góor yàlla lañu ay murit lañu dañuy nangu ndogal gi mais tamit yenn saa ay nit lañuy doon waaw day day dañuy def fu nit waaw boo xoolee nag dañuy waaw mooy metti na trop ku ne mettiwul waaye da wax lu la neex lii dafa metti lool lool ba si kanam yàlla surtout nag ñun ñi nga xamante ne daanaka. waaw dañuy dund lépp nag ndax mbokku mbokku moom daanaka dafa tënk lépp waaw dafa metti trop soxna si baat siñ gaan metti na trop. Hmm. jërëjëf ñu ngi la jaale bu baax a baax. jërëjëf soxna si ñu ngi leen koy jaal yéen tamit yéen ñii di leen di di leen di gërëm di leen di sant di leen di ñaanal suñu borom yokku leen si barke sëñ gaan waaw wasaare tamit ñu ngi leen di santaat bu baax a baax a baax parce que tamit. waaw wane ngeen ne bokk ngeen ak ñun naqar gi waaw munoon ngeen munoon ngeen munoon leen si bañ a na leen si baña fekk mais comme te dégg ngeen def déplacement jóge ba Maris su ma juumul seen télé bi mi ngi ba Maris ngeen jóge Maris ñëw fi def déplacement bi ñu ngi leen si sant di leen siy gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom sàmm leen sàmm sàmm seen directeur ak agent yi fa nekk yëpp si barki Sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf mbokk internet yi doon safoo di seetaan site bii di wasaare nii lañ leen ko waxee woon tey jii ngeen ko doon gisee ñu ngi woon file ci asalem moo di bi nga xamante ni moom la ñu faat ci faatin bu doy waar dégg ngeen nag ay kàddu seede yi jël nañu ko ci ay xaritam jël nañu ko aussi ci ki nga xamante ni moo di kilifaam file ci asalem euh, joxe nañu ay seede waaye tamit joxe nañu sabab ñu faat xale ba góor boobu nga xamante ni mooy wuyoo turu semu euh, dafa demoon rek ngir wëri euh, xaalis bi nga xamante ni def ko leble woon ci la jëlee ñàkk bakkanam boobule mu nekk loo xamante ni lu tiis la ndax jotul ñu tegaat fi peine de mort ndax gis nañu ci réew mi li nga xamante ni moom la ñuy faat ci ay doomu aadama lim bi bu ñu ko xaymaa nekk na loo xamante ni lu takku la est-ce que jotul tamit nguur gi taxaw seetlu ci ñi nga xamante ni ñoo di askan bi ndax askan bi fu nekk nii dañuy reyante reyante boo xamante ni yow ci sa jëmu bopp sax doo ko mu nekk loo xamante ni lu waar la ñaanal moom mi nga xamante ni moom moo fi bàyyeekoo tey ñu taxaw si buntu këram yàlla yërëm ko xare ko aljanay firdawsi fa mu jëm gënul ko fi nga xamante ni fi la jógee di jaajëfal mbokku internet yi nga xam ne ñooy safoo di seetaan site bi di wasaare société di jaajëfal xaalis sama doom ji rendez-vous beneen yoon incha allah ak yeneen actualité ak système benn taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke bu mag bi jaajëf